TGV bi ñëw na bii laa war a yéeg macha allah waaw moom laa war a yéeg TGV bi waaw TGV bi ci laa war a yéeg dem Paris xaaj fii laa war a yéeg est-ce que duñ ko jéem a yëkkati hmm? waaw